mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal fii ci Touba Info tey ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Sayer Dieng bokkoon ci daayiratu Safinatul Aman fan yi ñu ne meeku mu génn di def ay révélation ci daayira boobu lee di Safinatu Aman nga xam ne yitteem moo nekk euh, sàmm xormay dëkk bu seel bi di tubaa mu mel ne gis na fa ay naka sudul noonu yoo xam ne mi ngi am ci biir daayira bi ba taxoon mu delloo ak kartam Sayer ndax mën nga ñoo dikkal laatal ci révélation yooyu le asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man la Sayer Dieng euh, dëkk nekkoon ancien coordonnateur bu Safinatul Aman actuellement ma nekk ni ancien chargé de mission bu Safinatul Aman maa ngi nuyu mbokk réew mi di mbokk nuyu mbokk taalibe yi. 2017 euh, laa ci la ma la ma fa sëñ Modou Abdoulaye moom suñu Moustapha bi yóbbu ndax damaa waxoon ne liggéey bi da ko ñor lool ndax dafa gis na fi ñor suñu Muntaxa léegi nag mu tànnal ma ci njabootam boolem ak sëñ bi euh, ma nekkal ko fa. waaw ah, liggéey bi moom daanaka wax di yàlla macha allah demoon ba demoon na ba jaaroon na ci yoon hmm, gannaaw bi nag xëy na ay coppat am na ci waaye wax di yàlla demoon na ba jaaroon ci yoon te it demoon na ba daal wax yàlla maanaam ñu bari rafetlu woon nañu liggéey bi torop gannaaw bi nag xam nga àdduna moom day day day dox maanaam te it nit ñi duñ bokk xalaat waaye daal li am solo mooy ñun ña fa nekkoon te Sëñ rek moom bàyyi nu fa ku mel ni man xam ne dafa yóbboon waaye jógoon sax damaa damay wuti carte ndax man damaa jàpp ne googu jot du ma ko am lu ma fi yóbboon daal mooy sëriñ bi. dem nañ na ba gis naa ak coppeeku ci liggéey boobu moo sabab ma démissionné démission bi li ko waral mooy acte de négligence moo tax mooy maam di dem liggéey yi gaa ñu sàggane la mooy pacte bi njëkk ci démission bi. kasare fi guddi damaa demoon ci benn béréb fekk fa ab xew-xew bu mag. ma xool ne sëf na ma duñ ko attan ndax dafa xaw diis ndax mbooloo bari ma ne garaawut euh, lii su ma woowee sëf na man nañoo am ay loraange naawoo euh, commissaire Bachir Sarr bi ma ko mu ñëw nu ànd def léegi ma ak moom ak i élément yàlla def ma ñu dóor ma dóor metti ba gaañ ma bi ma gaañ ne sama kilifa koo sàggane maam daal dafa ma jàpp sax comme ñu rek loolu moo tax ma mm, mooy acte njëkk bi tax ma di maanaam ma démissionné ci toppaat li ñu am ci moyen comme ni ma ko waxoon ci audio ba daanaka gis lu ci ëpp suñu Modou moo ko utilisé ay ay yitee boppam ndax euh, Touba Ca Kanam jox nañu oto yaakaar na parce que man mii daanaa ko daanaa ko yor waaye soxla ko sëñ bi lépp lu muy dox ñii segal gerte gi ñii segal gerte gi te maam xëy na mbaa jiite leen joxoon nañu oto oto boobu li muy liggéey mooy yóbbu xale yu jàngi suba bu bu bëccëgee jëli leen. xale suñ Modou ay doom man mii nag ma gis ne ginnaaw liggéey bi mi ngi yokk te man maa nekkoon ca bureau ba depuis 2017 ba biñ ko indigéey seet bi nii man maa fa ne mbooloo mu fa ñëw maa leen àtte bu fa sëñ maam ma fa def maa ko fay def bokk na ci may leen kon baax na ñu wutal ma warwaay bu may dimbale parce que bu ma ko defut sama kaaraange maam day manqué ma parce que damaa bëgg oto moom déedéet sama kaaraange laa bëgg aar sama bopp la bëgg aar ba ci topp it damay recevoir kilifa comme fii nga fii fi ñu toog nii booy recevoir kilifa da am bureau boo leen boo leen di recevoir man a wax ñoom wax ju toll nii wax ju wax ju méngóog ñoom man leen a jëmmalit maanaam euh, jox leen wàccuwaay bu toll ak seen wàccuwaay ñoom loolu amut bi suñ programme yi bureau yu bees yi ba pare man dama ba ba ma gis moo tëj ko wàcc suuf gi maanaam bëgguñu fi dajale dajale ne ma secrétariat fii ngee nekk yaa ki fi nekk booy amee ñu jën ki dem ci biir bële ndax am na ñuy wax waa recherche mooy ñiy gëstu ñiy gëstu ñi jàpp fa la ñu ne dama ko jox ngàndik man loolu du ma ci mën a dox ndax it mënoon biir boo xam ne mbool lañu dem ak ñëw sër Sëriñ Tuubaa ñëw wala wala kilifa ñëw nga bañ ko jox nga bañ ko jox wàccu waayam te bëgg waxtaan mënut a ne yooyu bi ma ko dajalee yëpp nag ba ma xooy sa bopp daal la ma def mooy dama tekki sama ndoom ak tànk delluwaat ci sëriñ moo fa woon parce que dégg naa bëkki démb am na benn suñu carte communication bi dégg naa bëkki démb génne dañu maa dàq waxu dëgg ko joxe sama téléphone bii nii man lu ma liggéey dama koy bind damay enregistré damay filmé dégg nga la ma mu mujjee léegi kër si mu taxaa léegi motu 20 bi mu mujjee def opération kër si mu taxaa woo xale yi ànd fa ak ñoom motu 20 jours naa la ko man yàggut yëgut te fan yii rek yëgul lool man ñu suñu mujj yi naa la kon di bala maa dem. pour wax ne ne la ñuy wax la ñuy wax leen bokkut man damaa jóg pour layal kenn damaa jóg pour dëgg feeñ man jógum pour nekk avocat kenn bi muy entreprise entreprise wu ma kenn ku suñu Modou ndax man moom la boole moom lay liggéeyal tey nag document bu ma mosul liggéey mi man xam naa xam na xam naa xam naa. oto yi ñuy daawal nii di di yeb nit ñi nii ci dëkk amu ci kayit muy ñaari kat ñaari ñaari ñaari ñaari kaar yi fi nekk. loo ko doon firnde ndax jekk na est-ce que jaadu na dana war rom foofu ndax suñ mun taxa daf noo jàppale euh, jox nuy moyen na ci suñu wet maanaam moom dafa wax ba pare jëf ba pare taxaw suñu wet waaw xaalis bi moom bu xisee ak banque ba bu xisee a àgg ba ku la wax ne li fi li ñu wax lu dëgg bu xisee ba àgg banque ba muy ora banque bu xisee dugg ñun ci ñun kenn ku la mën ne fii la jaaroo mut man de xaw ma xaw ma ñii liggéey bala bu ñuy wàcc trois heures ki koy jëli Aliou Ndiaye la tudd dana ko jëlee bu ko ci banque ba bu ko yóbboo ñun xaw man xamatuma am na doomi sëñ bi ci la bokk Aliou Ndiaye moom ci la bokk. waaw doom ci la bokk. ci la bokk Aliou mi ko jëli ci la bokk. des na benn mais yaakaar naa su ma jumul am na ci élément keneen waaye kookat bu fi ci nikku rek la fay dem. dërëm boo fa génne jox ko nit bu dee ci bureau ba la dinaa xam fa mu jëm waaye bu fa jub xaaf jógee ba ñëw fi mu xamatuma li ma bëgg rek ñu xam ne daal euh, kuréel gu jar saytu la dañ ko saytu teg ko ci aw yoon wóor. wut oto yi ami kayit ñu di ko dawal ci dëkk bi oto yi fi tali bi nañ ko jox liggéeykat yi dem kon nag ñi ngi jéglu ñëpp ñu xam ne doon nañ ànd ñu liggéey bi di jéglu ñi ñu ko doon seqal waaye ne man maa doon nit ko xam ne moom fu ma dëgg fekk mbokk li may wax nii tooguma tey tey di ko wax de lu ëpp at maxime ñu ngi ciy wax du lu bees lu ma doon wax ndaka jekk ak sëñ bi la ndax man sëñ bi kenn gën ma ko jege dama kon waxum nag jekk ndax man lépp li defar moom commande naa la ko wax soo dégg yaa xam ne bu dégg yoo xam ne dama la koy wax moom anduma kenn nit nag pour danga maam ci loo neex déedéet man noonu lay doxee sëñ sëñ Mbakke noonu it laay wéer waxee nag tànk maa ngi ne maa ngi ne ci dëkk bi damay kon ne léegi sëñ Tuubaa te nii ma la wax noonu lay doxe lii bi ma ñëwee nag yóbbu ma kenn loolu na leer jéggi mu fa kenn yóbbu ko lii ma wax ma la engagé Euh, bi mu jógee sama liggéey laa dellu ak sama kilifa waaye nekku may créé leneen loo xam ne damay wax dama koy da dama koy jël pour kere ko pour mu mu muy muy nekk loo xam ne dañu ko tuddee saaru leneen pour sa fi na ma de taxumaa jóg nag kuréel gi dox moom yitteel